Euh, loolu sëñ bi lu lu mat a jàngat la ci anam yëpp nañ ko commencé ci benn mooy diggante ak tubaab bi diggante ak tubaab bi sëñ Abdoulaye xam nga lan moo koy lan moo koy tënk euh, sëñ Moussa Ka ci li mu wax xasidam googu ñu wax faailun mu faalatin dafa wax ne euh, Moustapha damul li nga am Bamba sax amut li ni day nee ñu ba waxee loolu gaay na ko déet li nga wax ëpp na xam nga nga ne Bamba sax amul li day xëy na moom bëggul ta wax foofu ndax du ci baatin bi sëñ Modou Sow lu mu am sëñ Touba du mel ni mu mel ñun ñëpp xam nañ ko loolu moom kenn du ci sikk waaye nag fi ne fa muy waxee la waaye mu daal koy dindi daan ne Moustapha damul li nga am Bamba rek ka am li ni lay daan ne ko yow tubaab bi jox na la mbég Bamba dañ ko daal sëfu ay gis nga la ma waxoon wu ko maanaam sëñ Touba ak li fi nekk lépp tubaab bi bundu xataal nañ ko xeetu bundu xataal yu ne jéem nañ ko rey sottiwut su exilé nañ ko def nañ ko résidence surveillée daanañ ñëw ba waxtu wu nekk ñu ko ñëw di ko xool ci li mu nekk di ko woof mu jóge fa mu nekk di ñëw ngir euh, maanaam ñàkk ko wóolu ak ngir bañ koo bàyyi fi mu nekk waaye mu ne ko bamba sax amul bamba rek am lu ne day yow tubaab bi jox na la mbég bamba dañ ko daa safu ay ne ko am nga manto am nga galan boole ceeg tubaab di la way kuñ kalaame ba bëgg a tëj soo tiñoo ñu tiddi du lay kuñ tëjit nga tëjji mu ñëw yow sa may gi weesu na cey gis nga maanaam digganteem ak tubaab bi te moom la ñëpp doon doon doon jaaxle moom lañ doon tiit rawat na moom fit wi mu yoroon ndax euh, da ngay xool bi mu commencé jumaa ji lañ ko ci mooy ab raay waaye nee ñu xëy na loolu dafay gudd euh, nee ñu ba mu ko tàmbalee xam nga raay bala nga ko xanaa da nga gas nee ñu naan bàyyi ko rek mi ngi fii nun ñi kenn amul lu muy lekk mu naan day gasi kan waaye tubaab bi dañ ko jàpp yóbbu nee ñu ndeysaan keroog bi saxaar gu ndaw gi euh, corne fii tubaab mu laaj loolu lu mu doon euh, sunu maam sëñ Boubacar Guèye maam Baye Cheikh Guèye bu wóomi saxaar gu ndaw gi la Baye Boubacar kër sëñ Cheikh Guèye mu ko ah, ndax yàlla tubaab bi duñ ma jàpp tëj ma nga xam ne booba kon am na wax ju muy tontu waaye gis nga lefog gi mu àndal ak euh, teey gi mu àndal yéwén gi mu àndal yaatu dënd gi mu àndal ba nga xamante ni mën naa jëflanteeg tubaab bi ba la mu bëgg ci ñoom mu am ko te dam muut loolu sëñ tubaab moo ko def ci moom ndax moo ko teel a lijjanti mu yàgg a jaxasoo aw yàgg naa jaxasoo ki tubaab yàgg naa jaxasoo ki naar maanaam nit ñëpp ndax xam nga yón yónn na ko fi ndar lu ci yéeme loo xam ne euh, sama xel da cee nekkuloon waaye day wone dimension fi mu toll ne 1918 la euh, Cheikh euh, Babul Cheikh Sidiya moom la ñuy wax Cheikh Sidiya mu ndaw mooy maami xalifa yi fi nekk ni fii ci Boutlimit dafa ñëwoon ndar xam naa bëggoon naa egg si njaareen fekk na amul autorisation wala permission pour egg si sëñ sëñ bi dafaa yónni Cheikh Moussa ne ñu ba mu ñëwee. bariko gatanu Cheikh Sidi dafa sadd ay bayit ne nak bal bala ngaa wàcc bala nga defar danga moy tontu ci bayit yi ak daana li mel non moy famna ahlan bi wafdin jaa min injarimi wa karamatan bi qurumihi min qadimi wa lam ma ko nak fal mustafa in shabahat af'aluhu afaala walidihi fa laysa bi zalimi dane mustafa mom ay jëfam suñu su nuroog jëfi bayam toñut lol naari moko wax day wax ne ku nuru bayam toñu ndax toñu ndayam kenn ko xana ki kii kat fan la ko jere wala ndax moy bayam waye kon lol dafa yag ci mom dal nga gis ni mu ni mu yéwénoo ak tubaab yi te fii ne fexe na ba diineem sàmm na ko mhm. ngorom sàmm na ko la ca gën a yéeme mooy la nga doon tudd mooy ndénkaani sëñ tubaa mhm. xoolal tubaab yi 1895 ca août ja mhm. ba 1927 ci juillet ja mën ngaa jàpp ne fi ne fanweeri at ak ñaari daanaka mën na li muy manqué matul weer lépp ñu ngi ci ay loxoom lépp ñu ngi ci loxoom waxuma la ñu ngi ci loxo waaye fu fanaan ñoo ko fanaanal te seen i nga fa daanañ yónni sax ñoo xamante ni dañ naan ay taalibe léegi ñu fekk du ñuy taalibe waaye espion la ñu doon ñu ngi xool fu mu nekk jàppoon am nañu am nañu ne sax jàppoon na jàppoon nañu ñoom li ñu bëggoon mooy su fi jógee ñu yóbbu ko feneen waaye gis nga yéwén gi mu amoo ak tubaab yi ba tax na xel mu rëy mi ak maanaam yewu gi ak maanaam maslaa gi ba tax mu mën ko indi tubaa gi mu mën koo indi tubaa jëlee ko njaareem loolu loolu benn la ci li ci gën a yéeme mooy ak xam nga ne foofa njaareem ak na mu xawoon a jaxe waaye ñag ko wërta yëg yëgu ko te ñaa ña ko waroon yëg wala boog ñi ci ëpp yëg nañ ko ba gis nga mag ñi fi teew am na ñu ne mën na ñaar fukki juróom-ñett am na ñu ne ëpp nañ ko euh, ñoo xamante ni sëriñ bi euh, la muy xat-xat ak la muy jaxasoo jaxasoo su fekkoon ne jaxasoo woon na te wut wax na ci ñu yónnee ci barab sàngam ak barab sàngam bokk na ci maam Thierno Birahim nga xamante ni moom euh, mooy moo doon kilifa ak famille bi ñu yónni ñu fa war a yónni ñëpp ñu teew ko loolu di benn ñaareel mooy jumaay Tuubaa ji nga xam ne euh, sëriñ bi ñaari mébét la desewoon yu yi a rëy mooy jumaa ji ak daara ju mag joo xam ne université lañ ko mën a tuddee mm-hmm. gis nga ci jumaa ji lañ mu ci taxawee ba moo fi indi raay bi mu taxawal jumaa ji te jumaa ji ba koy taxawal mooy li ma waxoon léegi euh, la maral akub guerre buy waaj a tàmbali mm-hmm. te ci jamono ci jamono jooju la ko defee te loolu lépp mooy digganteem ak tubaab bi ndax su ci tubaab bi àndul woon mm-hmm. du am maanaam da jaay baati nag yu mel noonu tam du am ndax tubaab bi ay condition sina konoon lañ ko tegal ne nangam ak nangam ak nangam mooy am Euh, jumaa doog fee mën a ñëw kon indi na fi sëñ Touba euh, xëcc na raay bi tabax na jumaa ji baaje na Touba euh, sëñ Moussa wax na Cheikh Moustapha moo bor na suufa Touba ba waaju ñu neexut du fa ñëw su boobaa nga xam ne fii ne baay bi ci jamono jooju day am juróom fukki at yoo xam ne moom moo saña def lépp yàlla dogal na bañ koy renouveler waat fekk na Touba bi nekkatuñ fi kon loolu itam beneen taxawaay la boo xamante ni Cheikh Moustapha def na ko ci ci jëmmi rek yoon wi bokkut ak nag Cheikh si ni mu taxaw ak ñoom mhm. ndax euh, da xam ne am na ay mag ñu fi nekkoon ñu bari mbooloo ñii di ay waajuram ci deret ñii di ay waajuram ci ay at tudd naa ci sëñ Mounou Baxabane tudd naa ci sëñ Maam Thierno sëñ Mbacke Bousso euh, sëñ Dame Abdourahmane Lo ñooñu ay mag lañ mhm. nit yàlla lañ borom xam-xam lañ ñu bari ci ñoom jàngal jàngal nañu ko mhm. waaye nag nan la mën a defe ba ñoom ñëpp ñu nangul ko loolu ak nitee ma koy waral moo tax Cheikh Moussa nee ñu daana wax ne adduna bopp du ko yoon waaye am xel koy attan noonu nag la def ak ñoom ndax da leen a nangul dëgg-dëgg seen cër suñu borom subhanahu wa taala li ci gën a yéeme soo dee dégg xisa yi nettali Cheikh Moussa musa salalu kenn Moussa Sall kenn Baye Thierno lay wax Baye euh, la leen ko daa waxee bokk na nag ci loo xamante ne waras na ko jàng ci jamono ji gis na ci ñoo xam ne egguñu fenn fi waaye ñu leen mat maam dañ leen di sàllal waaye waxuma loolu sëñ Mourou Sow danaa joxe cër bu a mat dégg nga ba ba ñuy natt fii jumaay Tuubaa ji di ko war a xiblaal te sëñ Tuubaa cëre woon ko cëre loon bi mu ñëwee moom sëñ Mbacke Bousso nee ñu sëñ Tuubaa dafa sëñ Mourou Sow dafa jóg chaise bi mu yoroon daf ko daf yàgg naa def lu mel noonu ba ci sëñ sëñ Massamba mii rek nga xam ne mooy caatu maamam te xëy na juróomi at la ñu magante noonu la meloon ci moom te wut sëñ ñoom ñëpp nag ñu joxaat ko cër bi ndax xam ne mat na la mu doon euh, lii firnde la bokk na mën na la mu doon dañ koy nettali sëñ Mbacke Bousso bi muy kii jumaa ji nii bi mu koy natt di ko xibaal xam nga jumaa ji njëkk ji fi sëñ Tuubaa def ma nga woon ca penku ba mm-hmm. nañ ba nga ko bëggee def foofu sëñ sëñ Mourou Sow ah man day am ilimaan ju toll nii daal di joxoon sëñ ba pare di ko jiitu man daal loolu dalul sama xel nee na sëñ Mbàkke Buso xam lii Modou Moustapha yow mi xam lii a jiite yaa war a doon imaam kon gis nga mag ñi ni ko reconnaître li ko waral mooy ak niteem mooy itam joxeb cëram mooy woyefam mooy ak lewetam ak lefokam te itam day nit ku am maanaa nit ku am maanaa gi mooy lan euh, da nga gis jëflante bari yi mu daa def sañ Modou Moustapha xam na xamle na waaye la ca gën a yéeme mooy dafa nangu borom xaw xam moo tax mbir mu ne danaa seet ka ko mu di ko jox mu di ko jox xam nga amoon na fi secrétaire ca jamono jooju loolu dana jaaxal ku koy bindal tubaab euh, maanaam introduire nañ daayira ci kanamam mu nangu ko waxuma la mu yem foofu waaye moom ci boppam indi na fi kuy jàngal tubaab ay doomam euh, muy sëñ Modou Soa euh, saxola sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma laay wax sëñ ma Madina ak Cheikh Anta Diop kuñ doon wax Mouhamad Amad Wan te mbokk la ci ñoom waaye ma nga dëkkoon Fuuta ndax dafa xam ne jamono ci boppam moo koy laaj su ko jamono laajee te amoo ko soo ko fi indee keneen ku ñu yërut wala amul ngor mën na laa yàq say te doo ko te doo ko doo ko doo ko bàyyi xel kon dafa mel ne sëñ Abdoulaye dafay tënku lool waaye la nga xamante ni daal moom suñ ko doon mën a dajale mooy réaliser na ci anam yëpp te li ko ci dimbali mooy yar bi Serigne Touba def ci moom ak prédétermination bi mu yoroon ci askanam ca njëlbeen ba nga xamante ni jikko yi war a dajale ci kilifa daje na ci moom muy xam xàmmee ràññee yeewu lefak mën a ak ñëpp te itam teewut am ngor gu tooy du jaxase mbir yi lu mu warta dugg du ci dugg lay àdduna te nga xam ne munu koo ñàkk te mooy rafetal uh, alaxiraam mu def ko la ca des nag mu génn ce te du ci kee kenn léegi xëy na li ñu mujj mooy sëñ Makhtar Diop Thioump moo ko daan ne te rahmatullahi alayhi nee na sëñ Modou Sow daan wax naan ku ngeen ah, de de leen jaamu yàlla te maanaam ku àndal day leen ko digal mu jaamu yàlla mooy seen taalibe mu ne képp koo xamante ni nag Euh, mënu leen ko tax a jaamu yàlla na ngeen teel a tàqalikoo ak moom mu ne lu ko mooy bis dana ñëw ngeen tëj euh, man bëgg a tàqalikoo ak moom te du ngeen ko man te boobu yomal xiyaam la ci jublu te loolu moom mooy li fi Sëñ Tuubaa indi woon mooy li ñëpp indi woon mooy jaamu yàlla ak euh, sàmmonte ak àq yi kon ñoo ngi jéglu baax a baax xëy na lu ci dëng itam ñu xam ne dañ ko waajalul rek waaye bëggoon nañ mu gën fee jub te itam ki ñuy waxtaane moo noonu mooy nit ku mat ci anam yu ne jël fu ne day mel la nga ca indiwul moo ëpp solo euh, yàlla nañ ko suñu borom subhanahu wa yokk fayal bu baax a baax euh, ci barke Cheikh Khadim te bàyyi fi xalifaam bi Cheikh euh, Ahmadul Muxtaar ak mboolem ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ngir lislaam ji jëm ci kanam ak fu ñu mën di nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah. salaam wa rahmatullah Serigne Mouhamed tomb bi yaakaar naa ne lañ ci doon séntu lépp am nañ ci lu kawe njort ni nga ko waxee rek tënku na matale na. waaye dañuy defaat benn jàngat bu ndaw wala benn résumé rek ci waxtaan wi nga am xam ne nii mu ngi ko doon wax te tomb bi niñ ko waxee ci ci njàlbeen di euh, Cheikh Modou Moustapha ak mission bi nga xam ne nii moom la ko Serigne Touba bàyyiloon naka la ko yoree Serigne Mbacke dikk na ci euh, bala muy wax dara ne na Cheikh Modou Moustapha dafa réussir mission boobul une noble mission boo xamante ni Cheikh Modou Moustapha réunir euh, réussir na ko li ko waral nag dafa dajale mboolem jikko ak tànneef yoo xamante ni nit ku baax ak góor yàlla dana ko am ngir mën matale mission buñ ko jox nee na yëmut ca loola wala la ko may loolu mooy suñ borom da ko aw askan di askan wu sel ni ko waxee woon askan wa nag yëmut ca loola dañ koo jàngal dafa jang, njàng mi comme ni mu ko waxee mag ñi nga xam ne ku ci mel ni Serigne dam Abdourahmane Lo rek doy ci sëkk xëy na jàngal ñun ñu ëpp ci njabootuk Serigne Touba gi Euh, yar ko waaye yëmul ca njàngale moom eh, wala ca yemul ca njàng moom nga xam ne ni jàngal nañ ko ko dañ koo tarbiya ba mu mët sëkk ba lépp lu ñuy seet ci murid saadex nekkoon na ci Cheikh Modou Moustapha bu dajale loolu lépp nag ci lay daal di dooroon nag mm, sóobu wala matale mission bi nga xam ne nii moom la ko Serigne Touba bàyyi loon dikk na itam itam euh, ci li nga xam ne nii euh, mooy Cheikh Modou Moustapha bi nga xam ne nii Serigne Touba Cheikhul Khadim mm, na fi comme niñ ko waxee li sabab bis bi ñuy dëgmal Euh, ñu bari bëri comme noonu mu ko waxoon noonu euh, Cheikh Modou Moustapha euh, ci ñi nga xam ne ni xëy na dégguñu woon waxtaan wi jàppan na ne ci ay moment yu difficile lay lay lay lay toll wala ci ay moment yu difficile la la la nekk ngir mën a réussir mission bi waaye boobu fekk na am na lu ko jiitu am na lu ñu ko waajale ci Zahir ak ci baatin loolu daanaka am mission la boo xam ne ni Serigne Touba Cheikhul Khadim waajaloon na ko ko ba àggale gi rek daanaka moo ci des te mission boobu jamono yi nga xam ne itam war na koo mottali bëri woon na luy niru ay pànq. ak ay gàllankoor yoo xam ne ni nekk na ci kanamam ni nga ko waxee organisation bi ci wàllu murit gi euh, noonu yi nga xam ne ni ñu ngi fi nekkoon ci noonu yu feeñ ak yu nëbbutu yi ak euh, xeeti bekkoor yi nga xam ne lu lépp am na ginnaaw dëddoog sëñ bi ak euh, guerre mondiale bi nga xam ne ni deuxième guerre mondiale 39 45 ak yeneen ak yeneen ak yeneen tréewul de ndaxam dénkaane yi ko sëriñ Touba dénkoon ala kulli alin dina ko def bokk na ci bi fi sëriñ bi jógee mu jëlee ko njaareem andi ko fii ci Touba te dara du yëngutu nam ko waxee ni noonu la ko defee bokk na ci itam ci euh, ndono li jëm ci yoonu murit wi li ci mel ni taxawal jumaay ji def na ko gasraay bi ba mu ñëw fii nga xamante ni moo di Touba itam Cheikh Modou Moustapha def na ko ak lu mën a am comme Serigne Touba koo ko sant waajal ko ala kulli alin dana ko def euh, muy loo xamante ne nii comme ni nga ko waxee euh, bu loolu lépp dajee nag mu amoon jikko yoo xam ne nii képp koo xam ne nii Cheikh Modou Moustapha mos naa jëflanteeg moom rek. roy mën ngaa mën ngaa roy ci moom moo xam muy taalibe yi moo xam mag ñi nga xam ne nii ñoo ko fa ñoo nekkoon ak sëriñ bi sëriñ bi dëddu mu des fi ak ñoom war leen a jiite waaye lan moo tax mu mën a nekk ak mag ñi jox leen ab cër ba mu mat sëkk loolu la olof yi wax ne joxe joxe ab cër wala jox nit ki cër teewu taxul nga xañ ñu xañ la sab cër kon Cheikh Modou Moustapha dafa teel a xam loolu ba jox képp koo xam ne nii war ngaa am cër mu jox la ko ba tax suñ borom dimbali ko euh, mu réussir mission boobu ba mën na ne comme ni ñu ko waxee tey suba rek euh, yoonu murit ba keroog ñuy lem dend wi di ñibbi euh, fa nga xam ne ni mooy kërug dëgg ga képp ku fi toog wala lépp lu fi waay jëf rek mën na ne ci jëfi Cheikh Modou Moustapha la ko sikkandikoo gannaaw bokk ko Serigne Touba dénkee kon yaakaar naa ne waxtaan wi daanaka résumé gi sax day bëgg a indi ak jaxasa waaye nin ko séntoo woon wax dëgg yàlla am nañ ci lu kawe njortu kon ni leen ko waxee ci ak njalbeen nag lii nekk benn ci jataay yi nga xam ne nii fas nañ ko ànd ak waa commission culturelle bu diiwaan ci fàttali mooy kuréel gi lëkkale mboolem kuréel yi nekk ci Daaru Xuddoos te di dundal ak waajal màggal gu njëkk gi euh, ànd ak commission culturelle bi tànn ay woroomi xam-xam yu seen xam-xam leer ñu doyloo ko ñu yàggaw leen a déglu seetaan leen fu nekk sañ Mbàkke Lo rek doy na ci misaal kon incha allah rabbi euh, jataay yi day woy ak yeneen i bërëb di leen baalu ak di leen baal ak di leen jox dox daje incha allah rabbi beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh